Hmm. Oh, café noir, femme noire. Oh. Mais faites-le ouais. waay. Vêtu de ta couleur, qui est vide de ta forme. Comment de ta forme, forme casse, qui est beauté. Eh hey boy, boy m'a moquette de ci nank waay dafa quoi?

man dootuma fi raxas loo de dootuma fi indi ah pilon pam pam pilon géema géema bugi foor na de kokoriko kokoriko waaw allo ah waaw waaw waaw maa ngi am naa ko am naa ko waaw gi naar gu weex tàll sax am këf gu xonk gi ci bopp bi euh, keret keret ma ngoo keret gu xonk mi ngi ma yor maa ngi ci tali bi sax taxaw a ah. waaw benn la dafa dafa manqué benn bi rek la am waaw ma ndi ko waaw ma def arrivé p léegi maa ngi dikk maa ngi dikk maa ngi dikk maa ngi ci yoon wi ah déet ñaari junni bàyyi ko ñaari junni waaw baax na ñaari junni baax na ah waaw waaw kon maa ngi jël taxi léegi léegi maa ngi ñëw waaw waaw waaw waaw waaw jaraw lakk jaraw lakk te tey mu neex de ah <laughs> ginnaaw de dafal nànk nag yow it ah da nga maa xañ sama wërsëg moom moom fii moom dafa manqué taxi sax moom chante le jour paraît, Tu s'éveilles dans le village, pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon pam taxi waaw waaw réew taxi waaw waaw taxi laa soxla eh. ah, ah, man de taxi laa maa ngi ni sama taxi la waaw waaw dama oh. bëggoon nga yóbbu ma fee ah, almadi ak na rond-point ba waaw waay mooy ci kër yi rafet ya rek almadi wetu banque ba di ak ba foofu ma ngoog nag ci wetu ci wetu banque bi indi 3000 waay 3000 3000 cher na 3000 cher na sëñ bi 3000 cher na 1000 francs bu ma fajaru naa ma 1000 francs ak itam mu yàq sama liggéey 1000 francs laa yor almadi ji soriwul dara dara dara mënoon naa ko sax dox xanaa. waaye indi 1500 ndax gis nga xoolal suba si la indi 1500. waaw ba baax na ñu dem waaw yéeg a. fàtte naa la wax. arrivé payé. waaw baax na yéen a waaw yow lii la mu. xanaa ginaar. waaw ginaar ba ci la. ba ci dang may ginaar gi tax sax ma jël <laughs> ah, ndax yàkkamti loolu mënut a nekk ah ginaar ci maal ba déedéet maal dem de li mooy lan ginaar gii de yow yaa gën a jekk ci maal bi ka ginaar gi xanaa ginaar gi day nen or ginaar gii danga xamu xamul lim lim ma jaral loolu moom moom moom nga umpale waaye saa waay xanaa xamoon suba ba tey maa ngi raxas sama oto bi ba ci amoon ay neefare laali bañ moo tax ma ñëw di raxas du ko sama waay tey ngaa taal oto bi ñu dem. ah déet waay saay loolu moom du mën dem ginaar gi moom day dem ca maal ba. gi dina dem fa mu fa mu bëgg yegg. ma ne ginaar gi du toog ci kanam yow itam moom sama oto bi maak yow. waaw boole ñu. waaw nañu ñuux ci biir euh, maal bi moo gën a yomb ginaar gi dem ci maal bi. xanaa ginaar gee dawal kon. ginaar gi la ma jaral yaa ko xamul waaye man mii di borom xam naa la muy jar waaye sëñ bi xoolal bul ma bul ma xool dañu xëy dañuy fajar maa ngi taalal oto bi ñu dem bu ko taal te wàccoo ginaar gi ma ne la yow di nga taal oto bi am doo taal oto bi ma ne du ma taal oto bi te ginaar gi wàccul dem ci ginaar gi du wàcc laa la wax ni ma yow tam yow sëñ bul ma fonto waay xanaa du sama oto ah man tey maa yuuxu. yuuxul yow kat maa war a yuuxu man mi ngi fajaru gu weex. ma ne la ginaar gi du fi buuse meetar ko bu waaye ginaar gi day dem yow. ginaar gi ma gi dem la dul def laa ma ne la ginaar gi dem ci ginnaaw. yow dem ci ginaar génn na ginaar ginaar gi dem ci ginnaaw. sëñ bi waay boo boo boo xaaral déet déet. xaaral ma droité déet bul droité. yow tam mbir la bul droité. waay ban position bi ginaar ki nekk moo moo moo dangereux bul bul droite. waaye position bi nekk man baaxul bàyyi ma droite. waaye moo bàyyi ma droite waaye eh, waaye bàyyi ma droite. déet dégg nga su bul droite. bàyyi droite bul tourner bul tourner bul droite waaye waaye moo raad moom wax ji farankulaan gannaaw yow droité nga ba am ci droit ginaar gi sa ginaara xamoon nga jëggeeg lépp wax ji kay mooy ndax da koy suqilu am da koy yóbbu